le président de cette coalition que vous êtes, que tu es, euh, a été mon directeur de campagne pour l'élection présidentielle 2019. C'est vous dire donc que, au-delà de la politique, il y a des relations personnelles que nous entretenons avec chacun et chacune de cette coalition. Nous ne sommes plus membres de cette coalition pour des raisons qui nous sont propres, Mais je crois que ça s'est fait, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir en politique, dans le respect mutuel de chacun. Comme disent les Wolofs, dara ñaawu fi. Et cette coalition-là est la nôtre, elle va continuer à être la nôtre. Euh, et je considère que nous sommes condamnés, puisque étant tous membres de l'opposition, à travailler ensemble pour faire face à ce qui se passe dans ce pays. et éventuellement pour réfléchir de manière beaucoup plus stratégique sur les enjeux futurs qui nous interpellent. Mais nous ne sommes pas venus pour euh, spécifiquement cela. Nous sommes venus principalement pour euh, vous formuler des remerciements très profonds et très sincères. Parce que la coalition Jotna a été parmi les plus réactives euh, lorsque cette affaire s'est déclenchée. Immédiatement, Gaussou, ici présent, m'a saisi pour euh, euh, m'informer de l'intention de la coalition de venir me rendre visite. Et c'est ce qui fut fait rapidement. Le docteur Ablaïnian euh, est venu avec Gaussou pour nous manifester toute leur solidarité, mais surtout nous assurer de leur soutien moral, intellectuel, physique, financier, tout ce qu'il faudra pour nous accompagner dans cette épreuve. Et cela est salutaire. Je disais tantôt qu'on n'en attendait pas moins de la coalition Jotna, mais l'avoir fait mérite également d'être souligné et mérite les remerciements que nous sommes venus formuler aujourd'hui. Euh, ce soutien, nous l'avons senti durant tout euh, euh, le, le temps passé. en tout cas les, les, les quatre ou derniers, cinq dernières semaines. D'abord par la présence médiatique sur les réseaux sociaux, la présence sur le terrain concrètement lors des manifestations. Nous avons bien senti cette présence. Alors nous sommes venus à mon nom propre d'abord, parce que ce qui s'est passé, c'est vrai, s'inscrit dans le cadre de la politique. Mais ça revêt une dimension personnelle, parce que ce n'est pas dans le cadre de l'exercice de l'activité politique ou de l'exercice d'une fonction publique que j'ai fait l'objet de cette attaque. Mais c'est dans le cadre personnel, privé. Et donc, à ce titre, qu'à titre personnel d'abord, euh, au nom également de mes proches, de ma famille d'abord, de tous mes proches, au nom de mon parti politique, de notre parti politique, euh, mais au nom de tous ceux avec qui nous travaillons euh, étroitement au jour le jour, mais surtout au nom de tout le peuple sénégalais. Parce que cette, cette affaire, Dieu a voulu que ça se passe comme ça et que ça concerne Ousmane Sonko. Mais ça a été un déclic extrêmement important dans ce pays pour réveiller tout le peuple sénégalais. Au-delà des clivages politiques, des appartenances, toutes les appartenances réunies, ça a été le déclic que nous attendions depuis longtemps. Parce que depuis 9 ans, nous avons tous eu des difficultés, nous de l'opposition, à mobiliser les Sénégalais autour des combats de principe, que sur le fichier électoral, euh, le parrainage, la, gestion des ressources naturelles, la liquidation d'autres adversaires politiques. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui sont passées. On a toujours eu euh, du mal fou, en tout cas à mobiliser les Sénégalais autour de ces combats. On ne s'en glorifie pas. J'aurais bien souhaité que cette, cette parenthèse n'existât jamais. Mais je considère que, euh, euh comme dit le proverbe, les, les, les, les, desseins du Seigneur sont insondables. Je considère que à quelque chose malheur est bon et que cette affaire nous a permis de créer ce déclic qu'on attendait au point de sentir nous tous que le rapport de force est inversé. Et c'est salutaire en ce sens. C'est pourquoi nous ce n'est pas le moment de, de, de, de se relâcher. Nous devons tous embrayer sur cette question-là, nous donner la main. tout ceux qui veulent faire vraiment de l'opposition dans ce pays, elle n'est pas seulement politique, c'est-à-dire elle n'est pas seulement sous la forme des partis politiques. Ce qui s'est passé, on a vu le réveil euh, des mouvements citoyens également, qui ont joué un très grand rôle. Euh, si vous allez à la plateforme M2D qui a été euh, mise en place spécifiquement pour cette affaire, elle est constituée principalement de mouvements citoyens. Donc toutes les forces vives de la nation, qui sont politiques mais qui ne sont pas forcément sous la forme d'un parti politique, doivent saisir cette occasion. Et le message fort que le peuple sénégalais nous a délivré à travers, euh, à travers elle, pour se donner la main, se retrouver autour de l'essentiel, au-delà des préoccupations personnelles, des calculs, euh, au-delà des appréhensions. qu'on peut, qu'on peut avoir mutuellement les uns les autres, mais se retrouver autour de l'essentiel, et l'essentiel, c'est le Sénégal. L'essentiel, c'est cette jeunesse qui nous a lancé un message très fort, qui s'est battue, qui a été prête à sacrifier sa vie, parce qu'elle a espoir en nous, tous réunis. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le peuple sénégalais qui souffre. Et si vous voyez un peu certains avatars, j'allais dire, de ces manifestations, à travers le pillage de beaucoup d'enseignes de, commerciaux, commerciales du moins, ce peuple nous dit nous sommes fatigués, nous avons faim, ainsi de suite. Et oh, pour ce peuple qui est digne, pour ce peuple qui est grand, pour ce peuple euh, qui nous a témoigné de son affection, nous devons tous quand même faire preuve de dépassement et nous trouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire se battre pour en finir avec cette façon de gérer un pays. se battre pour en finir au-delà de la, de, du régime ou, de, de, de, la personne d'un président, mais contre les pratiques, pour en finir avec ces pratiques que les Sénégalais ne, ne peuvent plus accepter. Mm-hmm. nous, en tout cas niveau de PASSEF, nous sommes dans cette dynamique. Et nous sommes très ouverts pour nous retrouver autour de l'essentiel avec tout le monde, mm-hmm. parce que c'est le message que le peuple nous a envoyé. Mm-hmm. Et je pense que si on le fait, on a la possibilité euh, d'en finir et de changer durablement ce pays et qualitativement donc ci gàttal ci wolof euh, ñu wax ni mbégte la ci teew fii euh, ndax dañ fee fekk suñuy mbokk fii di suñu kër mooy coalition na kenn umpulewul fii ci Sénégal que suñu coalition la ñu ci membre fondateur euh, doonoon ci pàcc aussi bu am solo doonte nekkatuñu ci coalition bi te li ko àndi ci ñun la jóge suñu gis-gisu bopp ci ab jamono defe naa ñaawuñu si ñiñ ko seqal ñaawuñu si parce que politique moo ni demee te euh, gisu leen kenn ku génn comme niñ ko sàmmee gis ci politique xarab wala wax lu ñaaw wala teg leneen ci ndodd moroomam muy coalition boo xam ne ci ay valeur lañ ko tabaxee mooy valeur yi nga xam ne moo ñu tax a dugg ci politique ñun ñi ñëpp donc suñu kër la ñu ñëw ñi fi nekk ñëpp suñuy nit lañu su dul politique sax am nañu ay relation personnelle yoo xam ne balaa ñuy dugg ci politique moom mii docteur Ablaye Niane ñëpp xam nañ ni euh, ñoo bokk benn promotion ci anam ma faroon di wax ni bi ñuy dugg maa jëloon premier bi ñuy génn moo jël premier te mu nekkoon it sama directeur de campagne ci élection bi ñu passé kon ñi fi nekk ñëpp am nañu ay relation personnelle suñu kër la ñu ñëw waaye mënuñu fi woon ñàkk a ñëw suñ fi ñëwuloon it gëw ni dina ay waaye mënuñu fi woon ñàkk a ñëw ndax coalition jot na bi mbir mi ne kët ne jon dañoo bokk ci ñu njëkk a ñëw docteur Ablaye Niane mi ànd ak Gawsu ñëw sama kër euh, euh, naqarlu di xew bokk naqar géeg ñun euh, waaye yemuñu ci loolu seede ñu seen pas-pas ak seen yéene ci ànd ak ñun ci mbir mi ci xeex bi te noonu ñu ko waxee woon noonu lañ ko defee bu Sénégal yëpp gis ko ndax du ci télévision du ci rajo du ci Facebook bi ba ci génn dem manifester amul lenn luñ ci bàyyi ba Sénégal yëpp gis ko donc nit bu taxawee noonu da ngay gor da ngay dellu si ne leen jërëjëf looloo tax ñu ñëw fii wax ko ci sama turu bopp ndax mbir mi man la njëkk a concerné balaa muy concerné keneen dama gëm ni sénégalais bu ñu leen newoon Ousmane Sonko sàcc na xaalisu réew mi daan di firnde gaw ma ni kenn dina génn di wax waaye fi ñu ko tibbee dafa concerné nit ci jëmmam moom dong moo tax sénégalais yi mënuñoo nangu lool it donc sama turu bopp sama turu famille ak sama turu parti bi ma bokk muy Pastef ak ñi ñu àndal ñëpp di liggéey pour dajale suñu doolee def ko benn parti ak it euh, ci turu askanu senegal yëpp nag turu askanu senegal yëpp parce que li xew ku jàpp ni mbirum benn nit la da ngay nax sa bopp nit boo buggee dem fu sori dangay li tubaab di wax ëmb xam nga nu ñu koy waxee ci wolof waaye da ngay da da lu am rek na ko delloo ci palaasam bul bew bul yëkkati mbagg sénégalais yi naam am na ñu bëri ñoo xam ne jëmm jëm Ousmane Sonko leen tax a jóg waaye gëm naa ni ñi gëm ñi jóg te principe rek tax leen jóg ñoo ëpp foofu ñu jóg parce que démocratie la ñu bëgg a défendre te xam ni lii su rombee amul sénégalais buy noyyeeti Sénégal tey Sénégal yépp dafa mel nit ñi ñu ngi noyyi parce que ragal gi ñu ragaloon loo wax ñu ne la waa ji day tëje waa ji day dóore waa ji day loolu tey dafa mel ni wàññeeku na Sénégal wala teggeeku na sénégale yi dem na ba sénégalais bu nekk gëm na ni tey rapport de force bi wala ñoom ñoo yor doole bi te loolu nag dafa am solo ci démocratie parce que démocratie dafa war a nekk système boo xam ne askan wi mooy yor doole bi kiy jiite dafa war a bàyyi xel tout le temps askan wi ne su ma deful lu dul noonu askan wi dina ma ne eh du noonu su ma wéyee dina génn taxaw bu wéyee dina am nu ñuy def ak man loolu rek moo ñu mën a musal ci jaay doole bi am ci réew mi te loolu tey lii permettre na. kon lii musiba la woon bu jur nag xewal bu bëree bëree bari ñu santee ko yàlla ba tax nag senegal yu bëri jóg ngir loolu du jëmm Ousmane Sonko moo leen intéressé waaye dañoo xamoon li nekk li lalu ci mbir mi ak li nekk ci gannaawam te it Sénégal mënuñoo nangu senegaal depuis 1950 ba léegi wala lu ko jiitu sax kujje politique daf fay mus a am kujje politique. depuis ñoom Blaise Diagne ñoom Lamine Gueye yooyu dafa am bënd tey jii ñu toog ba tey jii vingt unième siècle ba nga xam ne ñëpp a ngi naan démocratie ñi amuloon démocratie sax ñun du ñu ne démocratie tey dugg nañ ci démocratie ab jimboor yi ñëw rek ni démocratie dootu fi am kenn kujje dootu fi am. Hmm. ku fi ne d'accord ma ma ma ma ma am fu ma jaar ak yow loolu sénégalais yi mënuñu koo nangu. Hmm. parce que bis bu amee mooy dañuy dellu ci jamono colonisation. mooy nit mun na jóg ne travaux forcés yéen ñi ñëpp dama leen di da ngeen di def lii par force kenn mënu ci dara nit mun na jóg ne jaratul assemblée nationale di voter lempo man maay toog ba mu neex ma ma ne lu ñu doon fay 50 fay nañ ci léegi 200. nit dootul am sañ-sañ mun nañu xëy mu ne ko fi solo ci koppati bu ñuul am problème te man nag damaa bëgg koppati bu ñuul kon loolu loolu moo tax sénégalais yi jóg loolu nag ñun ñi nga xam ne ñoo jël responsabilité dañuy def politique. dañ ko war a dégg bu baax te delloo sénégalais yu njukkal parce que dañoo ji lu bëri de man de dama naan sénégalais dese luñu ma dara dara sama bakkan bi tayle naa leen ko niñ leen delloo njukkal nag mooy ñu fexe ba loolu ñu doon am ñoom ci ay déception ci ay euh, euh, saa yu ñu amee demee ba yaakaar taxaw mbir mi tas loolu ñun war nañ góorgóorlu ba bu mu amati ci biim réew waaye war nañu góorgóorlu it ba ñun ñi nga xam ne dañu ne opposant lañu waaye ñun it dañoo ne ñun dañoo andi geneen xeetu politique goo xam ne ci dëgg lay lalu ci bëgg sa réew lay lalu ci jiital njëriñu senegal ci leneen lay lalu ci yërëm Sénégalais yi lay lalu waaye du politique boo xam ne looy def sa poos yow dong ak sa njaboot moo ko tax a jóg nooy fexe ba am ay milliards yóbbu ko ay Îles Caïmans toog jàpp sa ñàmbur nooy def ba euh, neexal waa bitim réew ba ñu mun laa gën a ngemb gaaral la di tànk yaa ngi signé li ñu bëgg di nga toog ci réew mi loolu di lor sénégalais yi loolu ñun ñiy woote boobu xeetu politique nag dañu war a xam ni askan wit bataaxal lañu yóbbante te bataaxal boobu mooy am na yaakaar ci ñun yaakaar googu nag pour mu sotti bu dee ñiy yàq ak ñi nasaxal réew mi ñoo mën a bàyyi seeni problème yépp seen noonoo yi ñu mës a am yépp daa di dellu si jàppante pour kenn ku nekk rek ñu daggal ko lu mu ci gato bi lu mu yóbbaale ñun ñiy woote safaan ba dañoo war a joxante loxo bàyyi siisante bi bàyyi fiirante bi bàyyi kenn ku nekk di xoole moroomam ni eh, eh, mu ngi may essayé ndax walla ma nga jëf ma nga ci leneen di ma won lii ñu daal di xam ni nag Sénégal bi muy Sénégal ba léegi li ma gëm conditions yi musul dajee ni mu dajee nii pour ñu mën a soppi Sénégal kon loolu ñun Pastef am nañ ci ubbeeku pour xalaat ceeg ñëpp ànd ceeg ñëpp liggéey ceeg ñëpp rawatina nag coalition jot na nga xam ne ci suñu ADN la bokk ci suñu nuñ koy waxee suñu meen la ci lañ ci lañu bokk donc loola tax ñëw bi mënul woon ñàkk di ci gërëm waa coalition jot na yëpp di ñaan yàlla mu dëgëral ñu ñun ñëpp Euh, gën ñoo dëgëral ci suñu yéene ci Sénégal surtout gën ñoo jàppale ci xeex bi ndax du xeex bu yomb te gëm naa ni ñetti at yi di ñëw day gën a métti rek parce que euh, dañoo dañoo dem ba li ma wax ni système bi musul musul yéeg ni ni mu mosul yéegee nii ni menace am na ci moom donc loolu bu amee te mu yor doole gu ñu yorut yor ay xarale ñu yorut mën a jënd li muy jënd yëpp gis nañ li mu jënd yëpp ci senegal bu ko defee ñu koy waxal subaa ngoon système boobu dafay li tubaab naan jeter toutes ses forces dans ba bataille mooy li mu yor ak li mu yorul yëpp li mu mën te yàlla xam na ni ñun amuñu loolu dina ko ci def loolu nag liñ ci mën a musal mooy benn fa ñu nekkoon nañ fa nekk fa ñu nekkoon ba askan wi wóoluñu ba ñu jaral ko mu xeex nañ fa des nañ ko sax yokk ñaareel bi mooy nañu joxante loxo xam ni borom doole beru du la may permettre nga nga jàkkaarloog moom loolu loolu nag euh, ñu ngi ci